alxuseynu yàlla ko yàlla doole gërëm nee na woon ku gëm yàlla ku ne war naa am yeent yii war naa am warukaay bu baax a baax ak kër gu yaatu ak yére yu rafet rafet ak làmp bu leera leer mu ne nag li ma jublukat mooy daaba ju baax ji moo di xel kër gu yaatu gi moo di muñ yére yu rafet yi mooy kersa làmp bu leer bi mooy xam-xam kon ci gàttal daa bëgg wax ne ku gëm yàlla ku ne war naa amee xel mu rafet amee ak muñ gu yaatoo yaatu amee kersa gu mat sëkk di rus lépp lu mat rus te yàlla tax amee xam-xam bu rafet rafet